Abdoulaye Mbuub ñu ngi lay nuyu. Euh, maa ngi lay ziar di la nuyu. ñu ngi am mbégte dalal la ci matinal bi. waaw jërëjëf maa lay nuyu di nuyu sa collaborateur yëpp. di hmm. nuyu également l' de vos euh, de la justice euh, particulièrement ñi nga xam ne ñu ngi jokkoo ci l' union nationale des travailleurs de la justice ak bépp liggéeykat et plus de justice boo xam ne tey actuellement li am justice nii sëngim loola. Mhm. très bien alors euh, maître Mboup ñu tàmbali waxtaan wi ak seen ñooñ wi di maître Ngagne Demba Touré seen collègue la gannaaw ba mu waxee. ci mbiram Ousmane Sonko aji Sarr ngir wone ne jëwriñ ji leen jabootee lam ca wax demee demeewut noona dañoo xëy affecté ko maatam lan ngeen jàngat ci boobu lay décision de bu bu jógee ci seen ministre Ismaïla jox Fall waaw euh, décision la boo xam ne euh, déjà décision la boo xam ne c'est c'est inopportune ba pare arbitraire euh, te loolu xaaruñu ko woon ci ministère bu mal ni ministère de la justice parce que nag quand même bu ñu waxee ci en tout cas composition donc de gouvernement bi ministère de la justice mooy ministère bi ñu dénk euh, donc mu war a respecter lépp loo xam ne loi les règlements de ce pays là donc mm. au sens large léegi ministère boobu nag demee ba nga xam ne ñoom torpiller la loi jaay doole euh, loolu moom la ñu bëgg instaurer comme règle je pense que képp koo xam ne tu es de justice euh, war nga jog particulièrement nag ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk secteur greffe waaw secteur u greffe moom dañ ko jàppee dañ jàppee ñun daal peut être ay xaar yoo xam ne daal euh, ñoom lu ñu la wax moom ngay def lu ñu bëgg lool ngay def pour am promotion da ngay dem foofu noonu di def les couloirs wala nga dem di raconter des ragots ñun loolu du yëfu góor loolu du yëfu fonctionnaire de haut niveau euh, boo boo xam ne euh, war nga ko def waaw li ñu li ñu ñu bëgg nag moom mooy que lu ñu mel dakk parce que affectation euh, maître Ngagne Demba Touré mi nga xam ne mu ngi dans le domaine politique mais damay rappeler ni également c'est un militant mm. euh, de l'union nationale de la des travailleurs de la justice loolu moo tax ñun aussi sooram ñu jël ko à bras le corps parce que bu ñu demee ci cadre politique rek déjà dafay violer la constitution normalement en son article bi nga xam ne moom moo accordé bépp citoyen nga exercer librement dans le respect des lois et règlements de ce euh, li nga xam ne moom mooy la politique ki nga xam ne moom moo jël la sanction contre moom muy le ministre Ismaïla Madior Fall c'est un homme politique di exercer ses activités politiques librement dans sa base politique muy Rufisque di ko def kenn xotlu ko kenn xoñoñalu ko pourquoi bon son moom mu jàpp ne parce que il a un pouvoir un pouvoir bassement mondain mu jàpp ne war na mën a jël un arrêté di sanctionner un un un un un boo xam ne son seul temps. Hmm. kenn mësul dégg ñu ne monsieur ngañ euh, maître ngañ Demba Touré dañ ko rapport wala dara liñ ko mën a reprocher mooy que def na ay activité politique jël na des positions yoo xam ne peut être en raison. Hmm. loolu nag ñun daf ñuy yéem parce que ñun dañu nekk génération boo xam ne nous avons connu a Madior fal professeur boo xam ne dañ ko naaw dañ ko naaw. Hmm. bu ñu gisee nag mu taxawee bii taxaw. ñun dañ ñun ñun dañuy jaaxle. alors bu weesoo politique lan mooy waral souvent ñuy euh, def affectation yi ngeen jàppee ne punition la ndax yow for naa ci weewu béy ne affectation yooya dal na sa kaw lu baree bari yan mbir mooy waral euh, loola. waaw man affectation dal na dal na sama kaw. Euh, je rappelle que même ngeen démb Touré sax peut-être que yàggul noonu ci ci greffe mais man def naa dix ans en tant que greffier ba ma génnee école aussi comme d'habitude ni muy demee. Euh, d'habitude les jeunes collègues bu ñu génnee Bakel lañ ma yóbbu def naa fo trois ans. Hmm. donc mu nekk nag benn expérience euh, très enrichissante donc en terme de de prof en gain professionnel mais surtout. Euh, en termes xanaa xanaa xeexum syndicat moo waraloon loola. du déedéet déedéet déedéet. ok te dama ko nangu woon parce que hmm. loolu moo doon c'était la règle. c'est aussi normal oui même même si enseignants yi sax ça se comme ça. mais ça se comme ça. Hmm. ñu ñu lu ñu nangu woon la et j'étais fier yi dem fa. Hmm. épanouir ba nga yàlla sottil ko ba bu moom sa ñëw. yàlla sottil ko ñu indi man Dakar parce que man fii laa juddoo waaye nag je n'en pas une fixation. Mm. ma nekk troisième cabinet d' instruction parce que yàlla peut être dafa ma bindee ma nekk nit koo xam ne injustice mënu ma ko supporter loolu la ma yàlla bindee. Hmm. advienne que pourra. ñu dem bokk SUTSIS ñoom ñu dépassé seen mandat de deux ans ñu interpeller le secrétaire général du SUTSIS bi fi nekk actuellement ne ko da war a organiser congrès bu ñu dee réélire ñu réélire la bu dee aussi la base dafa jàpp ne dañu war a def des changements hmm. ñu defal les changements mu ne moom il a son propre ñu ne ko yow tu es mandataire am c'est ce qu'on va voir ci la ñu ci laa jël man initiative lancer des pétitions pour organiser un congrès extraordinaire hmm. bon comme seen pratique ñu dem raconter des ragots au niveau du ministère de la justice ñu affecté mais manu militaire bañ may affecté aw ma sax ku ma remplacer. Hmm. ça veut dire que ñoom fonctionnement normal des services publics de la justice yàgg na bañ a nekk seen préoccupation. d'accord jël ma fa lañ ma jëlee yóbbu ma euh, tribunal de Pikine Guédiawaye non man militaire yi sama juge bi ma di d'instruction bi ma doon liggéeyal toog na après quatre mois amul greffier bu muy liggéeyal. Hmm. donc noonu la aussi moo tax chaque jour à chaque fois ak sama engagement bi ma am connaissant la nature humaine connaissant la cupidité qui qui a qui a fini d'être érigée en règle la au niveau de la justice xam naa ni man tôt ou tard aussi lu ne man mën na ma dal mais naa ni man lu ma góobe gàtt. Hmm. moo tax actuellement ma situation soo ma ci wax. Hmm. li ma metti si boo ma ko permettre. waaw li ma metti moom mooy les jeunes yi nga xam ne pour la plupart ils se sont mariés récemment. du ma ne loolu condition la. Mm. mais en tout cas au moins def ñu benn faute professionnelle. ñu jël leen parce que tout simplement ils ont respecté le mot d'ordre de grève la plupart jël leen sànni leen te pourtant la plupart ñu ngi inscrits woon dans les universités di jàng te l'état du Sénégal mi nga xam ne moo war a assurer la continuité. Mm. de en fait la la en fait la formation diplômante. renforcer seen i capacité joxu leen euh, permettre leen ñu former ñoom ñoo jël de propres initiatives former wu hmm. loolu nag dafay wane ne ñoom ils sont un peu en déphasage li nga xam ne moom moo am en tout cas au niveau international en tout cas dans les pays développés ñooñu ñu ngi développé actuellement li ñuy wax la qualité de vie au travail bi nga xam ne donc c'est un ensemble de programmes boo xam ne dañ koy def pour améliorer le confort donc en vue d'accroître à la fois leur bien-être et leur performance professionnelle. dañuy xool yow euh, madame Fatou Thiam ñu boo nekkoon fonctionnaire ñu xool ne sa borom kër mi ngi Dakar ñu jàpp ne yow boo nekkee par exemple euh, Kaolack va et vient yi ngay def dina tax yow kat ni nga waroon mën a toogee foofu noonu euh, sa xel dal nga mën a consacrer wu librement à ton travail dinañ xool ñoom li ñu mën a defee ba nga fexe jege sa borom kër ba pour mën a consacrer wu davantage ci sa liggéey maanaam allier mm-hmm. votre bien-être ak votre performance professionnelle. Hmm. mais loolu c'est le calibre de leur sujet ça veut dire que ñoom ils sont un peu dépassés par le management euh, de euh, en fait des parce que ku jël une telle mesure. maanaam yow jàpp nga ne yow loolu c'est le calibre de tes soucis tu es dans des humeurs ah dans des règlements de compte te loolu xaaruñu ko ci autorités yu toll ni ñoom man de je hmm. suis foncièrement déçu te lii moom bu ko bàyyi. d'accord mais mais moom ministre bi ci euh, affectation boobu li mu joxe comme raison mooy complément d'effectif maanaam euh, foofu mu yóbbu maître Ngagne Demba Touré Matam dafa manqué ay greffier euh, est-ce que loolu tamit nekkul raison valable mais beneen laaj bi mooy est-ce que tey mun nañu xam ndax réew mi matale na ay greffier wala dafa am région yu am lu doy yeneen amuñu. waa greffier moom malgré recrutement bi ñuy def greffier moom du mës a doy parce que xam nga du mës a doy. Hmm. dafa am une saignée extraordinaire. du am benn concours bu am fii no au niveau national hmm. muy que ce soit muy commissariat muy euh, magistrature muy ENA te greffier yi du ko jàll en masse. maanaam greffier ña ngay bàbbeeku di dem. ñu ngi leneen ña ngay bàbbeeku di dem moom une saignée extraordinaire parce que greffier yi toog nañ 17 ans yoo xam ne. Hmm. actuellement nii concours amul mi ngi suñu plateforme revendicative. di sept bonnes années nga jël ñoo xam ne la loi daf ne bu ñu defee cinq ans man def naa dix ans hmm. il y a de sens boo xam ne état moom ko amee bu ma ko bu ma ko assigné woon donc en réparation euh, daf ma war a indemniser parce que yaa y une perte de sens boo xam ne moom moo ko def ci coobareem hmm. dix-sept bonnes années ñu ne le ministre de la justice pour éviter le népotisme yi nga xam ne c'est des valeurs yoo xam ne euh, bokkul bokkul ci ngor bokkul ci worma parce que tey boo xoolee tey ñi gën a engagé wu moom mooy ñi sama génération jëm suuf ñi ci kaw ku ne yaa ngi tiit parce que jàpp nga ne yow boo waxee peut être responsabilité bi ñu jox nangu. Hmm. nga nekk dans situation précaire ñu ne pour éviter genre genre genre doyade yooyu nañu organiser un concours pour permettre corps bi nga xam ne mooy administrateur de greffe te ñoom ñi fa nekkoon ñu ngi dem retraite benn benn ñi ci des actuellement mat ñu cinq ñu ngi dem retraite benn benn pour loolu organiser le concours képp koo xam ne jàll nga sur des bases objectives nga mën a jàll nekk administrateur de greffe diriger un euh, un greffe monsieur Ismaïla Madior Fall nga ok loolu c'est une revendication ñun dañoo war a am ñun logement revendication légitime ñun dañoo war a bokk ci comité de gestion de fonds communs mun nañu c'est revendication légitime ñun dañoo war personnel bi nga xam ne moom mooy le personnel administratif dañu war leen dugal ci corps des assistants des greffes de parquet ñoom aussi ñu am plan de carrière mun nañu loolu tamit c'est une revendication légitime lii def c'est légitime may leen ñu le temps que ñu mettre en œuvre cela ñu dem waxtaan ak suñu suñu collègue yi ñu ñu ah comme que ce sont des autorités donc ñaan nañ leen loolu ñun la base jox nañ leen accord ñu ngeen suspendre le mot d'ordre pour leur permettre ñu ñu ñu en œuvre cela. Hmm, mooy seen grève bi paase mooy seen grève bi paase. mooy suñu grève bi paase bi nga xam ne ñu ngi lever le mot d'ordre euh, donc ci fin mois mois mois de mois d'avril mais on était loin de douter que en lieu place de satisfaction de nos revendications yi nga xam ne si ça demande que que qu'une petite volonté ñoom ñu ngi comploter. bi jéem a casser le mouvement UNTJ mais loolu c'est peine perdue c'est peine perdue. d'accord léegi grève booba la ngeen ci doon sàkku am ngeen ko wala da ngeen di dàbbaliwaat. amul lenn loo xam ne am nañ ko. lañ leen joxoon defuñu ci dara. defuñu ci dara lenn rek moo amoon loo xam ne wax nañu ko te peut-être que c'est effectif parce que moment bi ñu kii wax nañu ne le décret donc euh, voilà reclassant euh, les les les nouveaux collègues donc à la hiérarchie A2 mi ngi woon au niveau de la présidence pour signature décret bi entre temps génn weesoo loolu. amul lenn loo xam ne euh, matérialisé même li nga xam ne loolu ça relève uniquement ñun d'ailleurs suñu ñoo def ñu ñoo jël l'arrêté modifié ko pour bañ rek ñu ñuy wuta wuta ay lay parce que ñun dañoo war a figurer ci l'arrêté interministériel bi fixer la composition des fonds communs des greffes parce que fonds communs des greffes moom dafa nekk nébuleuse boo xam ne c'est indigne euh, que lu lu ni mel am ministère de la justice euh, ñi ko composé doo mës a gis ku la ciy defal comprendre le DAGE moom le président y a les représentants syndicaux mooy waa SUDIS il euh, y a aussi les représentants euh, de, euh, en fait le chef de greffe du de la Cour suprême le chef de greffe du tribunal de grande instance de Dakar le chef de greffe du tribunal d'instance de Dakar ñooñu ñëpp moo gis ñu defal la comprendre yu ne nangam la lii ngeen lii lañ fa am diw diw ñoo ñoo fa émargé. nanguwuñu ba tey itam UNTJ am fa représentant loolu. yàgg ngeen ko sàkko am ñu ñu njort ne aussi nag dafa am yoo xam ne dafay am yoo xam ne leerul lëndëm na loolu moom moo tax peut-être ñun tamit euh, jàpp nañu suñu droit la donc te dañ dañ fas nañ ci taxaw temm ba lu ñu mel am parce que quand même lu ñu mel mënuñu ci ministère de la justice. Mm. c'est impossible. c'est mm-hmm. impossible. alors loolu la ñuy xaar ci ñoom. Mm. d'accord ginnaaw procès Ousmane Sonko ak Adji dégg nañu itam ngeen jàmbat situation bi nga xam ni seen benn collègue greffière ci la nekkoon amul woon kaaraange contrairement ak yeneen yi nga xam ne ñoo nekkoon si procès bi ñu mujjee yàq otoom euh, mu jële woon yow itam tiitaange ci ni ko manifestant yi wëree woon. Euh, est-ce que am nga euh, d'accord Diawo du côté de la technique nee na bi neexul est-ce que am na mesure ngeen jël gannaaw procès Ousmane Sonko ak Adji ak seen collègue greffière booba situation bi moo mujjoon nekk. bon effectivement donc bi bi procès bi amee noonu euh, dañu dañu dégg ñu ne euh, greffier bi nekkoon euh, ci ci ci composition tribunal bi. Hmm. dañ ko dañ ko agressé ba yàlla sal di moo def li gën ba kay que finalement ay dégâts matériels rek moo am ci ci oto. Hmm. bon ñu constaté également donc mesures sécuritaires yi ñuy jëloon. donc defar ko ñi nga xam ne ñu ngi la composition du tribunal moom dañ ko ci beddi bon ñun nag xam nga yàgg nañ dund lu ñu mel man yàgg naa jël flagrant délit Dakar Ndakaaru. Hmm. fanaan sama bureau. Hmm? kenn xamu ken fa yàgg naa ko def pare pare quatre matin. daaw a ñemee génn yàlla yàlla mayu ma oto. ma ma lemu ma lemu sama bureau fanaan fa. donc te kenn du si euh, fan laa fanaan nag nan laa def ba kii hmm. na laa def ba ñibbi musul nekk seen kii ñu jàpp ne nag loolu c'était c'était c'était un ñu euh, comme que ñun loolu mooy suñu wareef en tant que syndicat ci lañu génn dénoncé ko bañ ko dénoncé dénoncé aussi bo retour yi ñu ci am mooy que jàpp nañ ne foy nañ for nañ cinq mille bay la ñu wax parce que peut-être après collègue bi revenir u mm. que ne euh, le premier président jëloon na ay engagement pour que dédommager ko après par la suite aussi il y aurait eu une rencontre avec le garde des Sceaux kooku aussi peut-être jël na ay engagement peut-être pour le dédommagement loolu ñu koy rafetlu di ñaan yàlla aussi euh, lu ñu mel bañ a amati. Hmm. parce que dara mënu ko justifier. Hmm. alors ba tey ci seen xeex xam naa mooy doon laaj bu mujj bi maître euh, kon euh, Mboup da ngeen a fas yéene léegi yam ci seen liggéey kot bañ cee rax leneen. waaw loolu loolu loolu aussi je pense que kaala boo xam ne daf ma yéem <laughs> parce que bi ñu defee grève ba pare. Hmm. suñuy collègues yi nga xam ne ñoom ñoo nekk tribunal d'instance hors classe de Dakar. Euh, dañu ñëw gis ne seen métier. bi nga mm-hmm. xam ne dañ ko def concours sélectif dem fa def formation euh, ñu jekki-jekki dem ji ay nit. ay gendarmes souvent nga xam ne kenn xamul mm-hmm. man des fois mu des fois mu nekk ay agent yu nekk foofu wala kenn xamul lan. te dañuy dañuy rappeler ne justice. Mm-hmm. ñun suñu greffier suñu prestation de serment dañ ñaan la donc da ngay jurer gën a révéler aucune information portée à ton à ton égard. dans l'exercice de ses fonctions ku gis tribunal d'instance de Dakar. wala tribunal d'instance de façon générale moom mooy régler les affaires de famille. Mhm. des fois nga gis ay autorités kilifa di divorce. loolu nag tàggat nañ ñu nekk des agents assermentés ba xam suñu responsabilité fan la toll. Mhm. mais nga jël loolu ñu mel responsabilité bu ñu mel dem for kenn ca làng ga fële ñu ko ñëw parce que greffier baa ngi ci le ministre jël na benn arrêté donc ñu dañuy violer euh, la loi loolu yoon may na ko exceptionnellement. donc en matière correctionnelle mm. notamment l'article 78 alinéa 2 du, du code de procédure pénale l'article 227 alinéa 2 du code de procédure pénale ak l'article 386 in fine du code de procédure pénale mais daf ko dax en matière civile et commerciale mm. collègue yi nag ñu gisee ne ya a eu un recours donc au greffier ad donc dans des matières yoo xam ne bokku ci ñu gis ne lii kat sabotage et que ñoom léegi désormais mm. ils vont s'en limiter qu'à leur tâche yi nga xam ne Euh, moom la moom la l' article vingt huit du cadre particulier des fonctionnaires de la justice tënk ba pare aussi le code de procédure euh, civile donc en son article soixante dix huit aussi wax ñu ne léegi désormais bind benn manifeste ñoom ñëpp ñu signé ko adresse à la à la présidente du tribunal hmm. def ampliation à la greffière en chef intérimaire ne leen désormais ñun on va s'en limiter qu'à nos tâches ministère jël note mais on léegi bu ngeen yemee ci seen liggéey cot bañ cee rax ya ngeen ca daan rax lan mooy doon njeextal li surtout pour ñi nga xam ne ñoom lañuy ñuy àtte muy les justiciables non man du ma raisonner en ce terme là en ce terme là la en fait la satisfaction des des des, des justiciables loolu c'est du ressort de l'État bu gisee ne il y a un personnel moom moo war a wut des programmes des voies et moyens pour résorber cela man damay damay taxaw sur le point de la légalité hmm. nit ki ñëw na di def des sacrifices énormes le greffier hmm. donc di ko def pour l'état du Sénégal du mu ne da koy nit parce que ñooñu nekk foofu noonu di nekk ci beneen wàll gi nekk ay liggéey liggéeykat suñuy nawle la ñu naw respect mosuñu am ak ñoom problème mais c'est l'état du Sénégal moo ñëw violé seen i droit ñu ne ah comme que noonu la fa demee ñun am nañu revendication légitime taxawu ci ba pare ñun nous sommes en train de faire un une un surplus de travail ñun désormais on va s'en limiter ñu yoon wax nañu fi ngeen waree am foofu ngeen yëpp boo demee au delà parce que da nga def usurpation de fonction. Hmm. loolu sur cette base là ñu jël leen ñoom ñëpp affecté leen. mais cette cette dictature là a trop duré au de la justice te loolu man xaaruma ko ci ku mal ni le directeur des services comme moom dama ko doon xaar ci feneen. Hmm. ci leneen mais pas ci ci yii nii quoi franchement man je suis extrêmement déçu. Hmm. te loolu ñun aussi dañu war a taxaw temm pour que mu arrêté. mu arrêté moom bu ñu ko doon def nii du toll fi mu toll. bu doon moom fa mu jaar. Hmm. ba ñu waree organiser concours magistrature organiser nañ ko du nekk magistrat. bu doon bu ay avancement yi mu am yëpp y avait des gens yu nekk di ko tor lu lu lu kon euh, du yegg fi mu yegg donc lu ñuy xaar ci moom mooy que mu def des réformes efficaces efficientes donc loolu euh, euh, ci ci li nga xam ne moom la ñuy moom la ñuy affecté les les les travailleurs de am une gestion du du personnel boo xam ne c'est basé sur sur des sur des critères objectifs. Hmm. et non partisans. waaw ñun daal loolu la ñuy ci moom. jërëjëf euh, xëy na mu dégg leen maître Abdoulaye Mboup ñu ngi lay gërëm amoon nañu mbégte lool dalal la ci matinalu Rewmi FM tey fàttali ni yow yaa yore wàllu communication ca UNTJ du Union des travailleurs de la justice greffier ngay tam ca tribunal de grande instance bu Pikine Guédiawaye. ah jërëjëf maa leen jërëjëf.